kan ma sataak ma seer ndaak première attaque xaar leen yeneen yi ndaak sama bis bi bés gën koo rëy de lan ma ànd ak kan ma ak ma seer ndaak ñëw bi bokkul ciseau bi dëngul waa kon baax na ma fekk ma toog xool ma xool ma man xool ma man nga yow nga retaan man la. kànge def te make bi maam aar sama waa ji moom ak génnee nii soppi ma rakk fay day umu ndaaj sama bis bi bis gënu koo rëy ci mim réew maam aar laa àndal réew mi yëngu na bi masha allah kontaan naa sama càmmin ji soppi nga ma rakk fay day merci maam aar ci may-up bi macha allah kontaan naa sama càmmin ji soppi nga ma dafa fay dee.